arbitre bang len di wo ma ngay souffler ci digante Gaskel Diamé mo ñu wan gannaaw ak dandama Mayo arbitre baa ngay wax ak ñoom ayca souffler na ci digante ñaari xalé yi revanche ou confirmation Danda yo daw na bañ na lim koy sanni mu jaar ci gannaawum ñom ñaar ñepp ku ci nekk yaangi taxaw di def round d'observation di xol sa morom xamanté nañu digante Gaskel Diamé domu ganjay bi ak ki nga xamné lay san soy dugg si bo sor dieu xale yëpp moom la ñuy topp muy Dandamayo Dandamayo moo ñu wan kanam Gaskel wan ñu gannaaw fii ci stade municipal bu Gamboul ànd ceeg le jeune promoteur Sonar production ndeysaan ñaari xale yaa nga ca dara amagul deux zéro ou confirmation ndeysaan Dando Maye nee na ko daanoo ndax soo daanoon vidéo yi gaskal na ko daan waaye dana leer tey ñaari xale yi Dando Maye waawoy arbitre nee na ñëw leen Dando bi wala stratégie arbitre suuf la waat na Dando Mané da ngay demaat boo fa delloo bu la la waatee dana la jox avertissement de. technique la wala consigne la wala système la wala piège la Dando Mané daal ma nga ca latéral ya Ndandomaye Sibassor Gaskel Jammeh Gandiaye doomu Gandiaye bi ndeysaan journée Sonar production fii ci stade municipal bu Gamboul xale bi daal mi ngi innové li nga xam ne mooy la lutte fii ci diwaanu Gamboul dans le département de Kaolack il fait un excellent travail ce Sonar production il la l'accompagner ce jeune la xale yaa nga ca dara amagul jàppante nañu jàppante nañu attention Dando la bëgg a bëre nii la bëgg a bëre ñëw na jàppante nañu waaye génn na ko Gaskel Dando fiile na ko dara amul da ko bëgg a fiile de Nando Maye mooyul soo génnee am avertissement de ñaari xalé yi ñi ngi bëre bëre tactique ak calcul ñaari bëre yi ña bëre tactique ak kosi léegi ñu mi da dara amagu fi attention gaskel fi mu téye baax na gaskel fi mu jàpp baax na téye na ca ngemb la téye ca ngemb la ca kanam ma ngi koy tànte boot a ah woy du dem gaskel daan na ko daan ko daan na ko daan na ko daan na ko gaskel daan na ko